yéen kaay yeeg Mamadou Mouhamed Ndiaye ngeen jëf gëj a giseeg sa maam bu taxee nga yaakaar ne sax nay bañ booba daa fekk dëkkook Abdoulaye Wade xooli leen ko ci observateur Walf Fadjri mbaa Le Quotidien ubbil observateur ci ndaje mu ñu doon def ca Versailles ga ca France di remise prix leadership africain wowoon ko ca moom Abdoulaye Wade fa la Abdoulaye Wade wane boppam waneeti fa ak pànkam Abdoulaye Wade ne bu demee ba mën fee def lu fi kenn mënta def dafa fekk mu boole muus ak ñaw firnde li moo di nee ba mu yegsee ci réew mi xool Sénégal sa bët mu dik ndànd bu dul jeex Abdoulaye Wade gis ne lii xaalis bu dul jeex la mu ne ci la utiliser ak ñawam ak matam ak xelam ba soppi ko xaalis ci xët mu njëkkool fajri Abdoulaye Wade ne askanu Sénégal yéen lay waxal bu leen dof wax leen seen njiit ñu defaral leen ay taleeki taax yu baax maanaam ay infrastructure yu baax bañ fee nekk di taf di yëngal wala ñu leen di defal loo xam ne du yàgg lépp lu luñ leen di defaral nañ leen ko defaral mu baax ba bés buñ fu jigee ngeen mën di ko jëfandikoo ba tey Wade mën lépp nekk ca li ñëpp jàpp ne moom la mën mu di ab dàggasante ndax nee na politique bi ci réew bu Sénégal ak Sénégal ak institution institution yi ni muy doxe bu ko kenn yaakaar mu wax ca ndax dañu ko caa génne moom it mu yombalal leen ko toog noppalu ca observateur nañu bu ko waxee du ko man ndax kaddu yi mu yëkkati keroog ca Versailles firnde ci journal bi nañu waaye kenn nag du Pape Samba Mboup ndax moom ba fi nekk ni munta def ci boppam ne ñàkk nañu nguur gi nekkatuñu ci bopp réew mi la koy firndeel yéenekaay bi nañu moo di keroog ca ndaje mañ doon amal ca Versailles Pape Samba Mboup ba a rectifier li mu wax xamal ko ne daf cee juum waaye Pape Samba ba mu leen gisee muy ñëw la yëngal boppam ne leen jarul ngeen di yegg la mu wax xam naa ko Abdoulaye Wade mooy président de la République bi la toj toj yewoon ca ndaje moomee ca Versailles yemul ci loolee rek ndax Karim Wade doomi Abdoulaye Wade baay ba moo ko jiitu ca ndaje ma ba ñu toogee ba seeseer ca la ñu a gis Karim Wade muy gàngaat gàngaat di soog a yegg ba mu yegg di Abdoulaye Wade tëj ay waxam ci le quotidien ndax nee moom gëmul ay libéraux di ànd ak i socialiste la mu gëm moo di libéraux yi awen ne socialiste yi awen na lee socialiste yi ci réew mi ñoo ngay werante ak a werante ci seen biir ubbil populaire Ousmane Tanor Dieng njiital parti socialiste moo fa yàq Malick Noël Seck lool weñ wu ca dal dee yàq ko lu mel ne xamee ndax nee na Malick Noël Seck góom na ci biir parti socialiste ay mbiram nag moom Malick Noël Seck Ousmane Tanor Dieng ne jarul Noël Seck commission baa ngi cay liggéey lu mu ca tënk rek dana ko jébbal bureau politique bi buñ ca noppee ca la ñuy xam ana nan la ñuy def ak Malick Noël Seck Abdoulaye Wilane moom mel ne ko xam nu ñuy def ak Malick Noël Seck kaddu yu ci xët mu njëkk populaire Abdoulaye Wilane la mu jàpp moo di Malick Noël Seck ab dof la bu doppooral bu ñu gome ba mu wow koŋ moom dof bi wala bokki ñu giñ ak ndof di Malick Noël Seck waxul waxi dof ci xët mu njëkk réew mi ko yërëm wax bu wéetee ak la muy wax bu toogee geew du doon benn lenn li yëngal jamono di yonent bi gën gi mbindeef gi nasaraan si bëgg a bindee nu leen neex ak derub lislaam gi ñu bëgg a gàkkal kenn ca ña koy xeex moom la wal fajiri grand place xëy ak ñun mu di Baye Mamoun Niass moom Serigne Mamoun Niass moom Cheikhal Maulana Ibrahima Niass yéene bi nañu moom sëñ bi Niass doxe Kaolack ba Ndakaaru la ngir jéebaane ak kañaawlu ni tubaab yi bëgg a gàkkale derub lislaam ma ngay muulu ak di ñaawlu jëf ju ni mel kaddu yu xalifa général lu tijaani sëriñ Mansour si mi ngi ci laas yéene kaay mu fay xam le ne ñenn ñu jóg ngir di gàkkal derub Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam ak di ñaawal derub l'islam du ñu def dara lu dul guddal mbayum noor la ñuy def wute wut ak fekk weñ gu sedd guyu nga cey dóor loxo yu toqe bàyyu futtu rek nga cey jëlee ma jëli populaire xooli fa coon bàllaago sekk borom jaaga coon ma ngay tubayul doom ja ko sekk gannaaw ba mu waxee waa populaire li mu xam ci réew mi ak tolluwaay gi bu sew di xale yu jigéen mën a yàq ay sëy Thione Ballago sekk wax na ci doom ji walli Ballago mi ñuy jiñ ak ngóor jigéen ndax yëre jigéen yi muy faral di sol Thione ne nañu may Wally sekk jàmm li muy sol yëpp gone yi mu maaseel moom la ñuy sol Wally Seck xaalis bu dul jeex moom lay dépensé bés bu yàlla sàkk ngir jënd ay yëre kon nañu bàyyi Wally sekk may ko jàmm bàyyi ko yëre yi muy sol te bañati koo wax ab góor